en Europe les gens se tuent comme des mouches. dëgg la. boo demee Amérique enquête les enquêtes impossibles la toog. di ko chaque semaine. maman chaque semaine. Mm-hmm. juróomi nit seeni doom rey leen. mais ñun fa lañ jëm. que daaw gis nga violence ci école doon nañ fi prof tegal nañ ko puso xoj nañ fa prof def nañ fa séquestré nañ fa prof fa lañ xale yi bu ñu la rombee sax ci école yi sax duñ la nuyu. te léegi dañu commencé ji Sénégal effectivement li ñuy wax toujours ci euh, jikko yeeg valeur yéeg yooyu. Mhm. am na violence yoo xamante ne yenn fee yoo xamante ne daanu fi am. léegi daf fi am effectivement parce que parce que aussi mooy li ma la wax rek ñun bi ñuy jàng. Mhm. bu njëkk ba da nga daan génn ñu ne la de utal koy àndal sa yaay dina la utal àndal koo xam ne doo ànd ak moom. Mhm. ñu dem ba biir. ñu jël mbedd mi muy télévision indi ko ci biir kër gi mhm. ñu dem ba ci biir ñu jël mbedd mi def ko portable jox ko nit mu nekk ci mhm. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum da doon wax en 74 di wax suñu xale yi mu ne ñoo leen jur mais yaruñu leen ils ont battu tous les records d'achat et d'amusement Mhm. jënd ak foo jënd ak foo rek la ñuy yaree jeunesse bi léegi. Mhm. kon école bi ban njëriñ la am. mais tey euh, sànq da nga wax lu am solo euh, professeur muy relation bi élève yi war a am ak seen ay professeur mhm. euh, tey yow lan nga gis ni moo mën a saafaral diggante boobu ba mu gën a ratax parce que jamono bi nañ ko wax nag ñu bëri ci élève yi noonu la ñuy gën a gisee kii leen di jàngal que parent wala ki nga xamante ne rek protecteur la. waaw xam nga xam nga lu tax parce que gis nga dañu nekk ci àddina boo xam ne nii. njëkk ba. da nga daan dem ci ab gox directeur école bi mhm. moom lañ gën a respecté junni ci préfet bi mhm. tey Wally Seck est plus important que le recteur de l'université aux yeux des Sénégalais mhm. xam nga